waaw tey euh, ñu ngi Mbour euh, projet Joanne donc euh, mu nekk projet boo xamante ne ni Eclosio ñoo koy mettre en œuvre waaye CRS ñoo ñoo nekk ci ginnaaw tey ñu organiser woon trois jours yoo xamante ne ni ay session la avec jeunes yi donc euh, jeunes yi nag mooy jeune cible projet bi euh, jeune appelé OI opportunity youth si anglais mooy jeunes yi nga xamante ne nii xëy na seen euh, niveau de scolarisation xaw na niiw nekkuñ ci formation amuñu xëy tamit wala jeunes yi nga xamante ne nii xëy na bu ñu amee xëy sax dañ leen di sous-employé donc tey ñu organiser ko woon parce que si suite la ñu nekk rek projet bi tàmbale na amoon nañ benn Euh, ndaje bu ñu organiser woon cees ñu woo acteurs yëpp ñi nga xamante ne ni war nañ leen a boole si projet bi ñu ñëw euh, wax leen euh, ñun projet bi orientation lan la parce que projet bi wax naa ko sànq approche participative la donc da ngay boole ñëpp acteurs yi nga xamante ne war nañ si bokk foog nga woo leen ñoom ñooy déterminer un peu contenu projet bi moo tax suite boobu noonu bu ñu partagé foofu suñu feuille de route ñu ne ah ñun de si année bi premier phase projet bi lu ñu bëgg a tëral partagé woon nañ ko donc activité bi si loolu lay dugg mais principalement si engagement des jeunes maanaam jeunes yi nañ leen mën a def ba ñu nekk ñoom jël projet bi moomal ko seen bopp di ko dérouler seen bopp. waaw euh, ñu ngi ciblé jeunes yi entre quinze à trente cinq ans donc ñooñu la ñuy ciblé euh, mais euh, il faut mu am ñu jiitu. parce que jeunes yi nekk suñu ay cible bëri nañ 15 à 35 ans ñu nekk département de Mbour macha allah nekk situation euh, peut-être opportunity youth bëri nañ macha allah donc il faut ñu créer benn cadre boo xamante ne dina am ñi nga xamante ne ñi ay leader la ñuy doon ñooy nekk si kanam mais en même temps di concerté wu ak les autres donc euh, moo tax euh, dañ ne cadre boobu noonu ñu siy bokk ñi dañuy nekk ay opportunity youth mais aussi dañuy am entre 18 ak 35 ans. donc euh, loolu mooy âge bi. waaw euh, euh, jeunes yi tey bu ñu trois jours yi def nañ ay travaux de groupe yu bari ay focus group lañ def luñ ci gën liggéey mooy déjà ñoom ñu xam seen localité Mbour gi yan opportunité la am en terme d'insertion en terme de formation ak éducation donc bu loolu bu ñu paree ci loolu aussi. Euh, génnee nañ yan mooy problème yi jafe-jafe yi nga xamante ne ni moo nekk fii ci ci Mbour pour ñu ma pour seen wàllum xëy mais tamit euh, wax nañ leen que lu ñu viser ci euh, activité bi mooy ñu créer benn cadre teg benn cadre boo xamante ne ni ñoom dinañ mën a bokk ci xalaat projet bi lu mu bëgg généralement donc moo tax. aussi partagé nañ ñoom bu ñu demee bu nekk ci cadre bi lan mooy doon seen ay rôle ak seen ay responsabilité maanaam lu ñu bëgg a def nan lañ koy defee donc euh, loolu aussi am nañ ci ay travaux de groupe yu ñu ci def euh, ci trois jours yi. waaw euh, projet bi nag waxoon naa ko dafa nekk loo xamante projet boo xamante ne nii région de Thiès moo ko tax a jóg ndaw région de Thiès waaye dañ dem ba def def benn jàngat gis ni que. war nañoo def étape par étape donc euh, ñu ne nañ commencer par euh, département de Mbour parce que d'après diagnostic bu ñu def gis nañ que xale yi vraiment dynamisme bi am na fii te tamit avancé nañ trop ci identification jeunes yu ñu soxla ci projet bi donc moo tax euh, ñu commencé département de Mbour après nag dañuy def benn temps boo xamante ne ni dañuy xool expérimenter xool lan mooy leçon yu ñu ciy am après nag ñu soog a ko vraiment euh, étendre ci yeneen département muy Thiès ak Tivaouane. waaw euh, comme ni ma ko waxee projet bi nu mu ñu ko tënkee dañ ne ñun. Euh, jamono ji munu ñëw ni jeunes yi ah euh, dañ leen di financer si lii wala dañ leen di former si lii nañ ne nañ jël benn période ñu jël euh, un an boo xamante ne ni dañuy créer cadre yi ma wax pour jeunes yi am ba ay espace yoo xamante ne dinañ mën a waxtaan mën a génne seen ay problème génne seen ay besoin parce que gis nañ fi ay accompagnement yu bëri gis nañ ko fii mais ba tey peut-être xëy na jeunes yi gisuñu guñu seen bopp si loolu donc ñu ne nañ leen impliqué mettre leen au cœur léegi nag cadre yi ñuy teg day permettre lu ñuy naan ko conception xalaatandoo xëccandoo dóorandoo ñoom ñu génnee lan mooy seen ay euh, seen ay solution si pro si wàllum insertion si wàllum xëy euh, ñoom yàlla ñu yaakaar ni si suñ leen si jàppalee dinañ mën a am xëy boo xamante ne ni bu baax la doon bu durable lay doon donc euh, instant bi mënuñoo si si avancé mais bu ñu demee ba période bi jeex ba ñu def concertation yëpp ba ñoom ñu génnee un document boo xamante ne ni wax nañ ko lii si lii lañ bëgg ñu ñu accompagner leen ñun suñu devoir la ñun ñu dem wuti les fonds pour financer euh, action yooyu. waaw wax nga dëgg xëyum ndaw ñi moom yaakaar naa ni priorité nationale la donc euh, gouvernement bi ñëpp a ngi ci def seen loxo pour jeunes yi ndaw ñi mën a euh, am xëy donc te buñ ne xëyum ndaw ñi tamit. Euh, yaakaar naa ni il faut ñu xalaat système bi yëpp muy éducation muy formation muy emploi emploi ak employabilité en en général donc euh, ñun nag euh, Eclosio moo koy mettre en œuvre mooy organisation bi nga xamante ne nii moo nekk di mettre en œuvre projet bi mais CRS pour cette phase première phase bi ñoom ñoo si nekk ñoo ko nekk di ko financer di ñu appuyer pour ñu mën a vraiment accompagner les jeunes. CRF c'est une ONG euh, américaine la boo xamante ne nii mu ngi fi Sénégal basé wu fii euh, Catholic Relief Services yàgg na di fi intervenir am am si wàllum développement si ay domaines yu bëri secteurs yu bëri. adaptation sociale de Nianing. Euh, Mbour nga dëkk wala laa bàyyee projet bi daal ni ma ko gisee maa ngi koy rafetlu bu wér ndaxte maanaam lii yëpp xalaatu ko si woon projet bi daal. ni ma ko ni ma ko gisee daal maa ngi rafetlu bu baax gars yi seen liggéey ak seen taxawaay envers jeunes yi ah en en plus tamit en plus tamit gars yi ñu ñu ngi def seen waraf daal si jeunes yi particularité seminaire bi ah njëriñ li ah en quelque sorte mën naa ni séminaire bi am na njëriñ lool ndax jàngal na si ñu ñu bëri jàngal na si sa nekkin ak boo toogee ak say morom sa nekkin sa biir ak ni ngay waxee comportement lim ñu jàngal daal bëri na quoi su ma limee rek damay juum man li ma si xalaat mooy maanaam comme ni nga ko waxee rek maanaam li nga xam ne mooy saafara ñu ñun ñoo koy génnee loolu gis naa ko tamit ci wàllum association bi ndax ONG maanaam ñëwuñ comme ni ni nga ko waxee au au début ñëwuñ yoruñ saaku emploi yoo xam te ne dañuy ñëw di ko joxe dañoo ñëw tout simplement pour soutenir jeunes yi jeunes yi nga xam ne am nañ opportunité tekki dara déwén amaana suba si dëkk bi waaw ONG bi li may wax ñu gën a bàyyi xel rek jàpp tëw bàyyi loolu moom laay njëkk a wax avant tout ak tamit seen liggéey bi maanaam c'est formidable daal ñu gën a jàpp si liggéey bi non lépp macha allah bilan bi waaw li ñu doon xaar si gars yi ñun maanaam comme ni ma la ko waxee au début rek maanaam affaire dañoo bett sax li ñu doon xaar si gars yi maanaam gis nañ ba gis lu ko ëpp sax kontaan nañ trop vraiment on est on est tellement fier de cette organisation maanaam man li ma am pour conseil pour yenn ndaw yi ndaw yi nekk Thiès ak partout dans le monde li ma am conseil mooy maanaam nañ gën a nañ nañ nañ bañ a sous-estimer dara gis na genre jotaay yi nii nii dañuy gën a yeesi àdduna mais toog rek fi nga toog banku ne ne ne ne xaar liggéey. man la Aline Sow jógee Joal. nekk membre mouvement Joal Fadiouth Nguelobul Renouveau waaw initiative bi initiative bu rafet la waaw parce que daf ñu dañ dañ fi jëlee lu bëri jàngal nañ ñu fi lu bëri tamit euh, am nañ fi ay atelier yoo xam ne jàngal nañ ñu ne jeunes ñi potentiel jeunes ñëpp ku nekk am na potentiel mais lan moo koy yee ci jeunes yi waaw tey ji du du ñëw ñu pour jox ñu liggéey waaye dañ woon naka la ñuy def accompagner ñu. ba ñu mun a jot ci loolu waaye Closio dañ leen di jaajëfal di rafetal xam nga genre initiative yi parce que man xaw ma woon ne nii lay demee bi ma fi ñëw amu woon benn idée luy JAN ak euh, Closio ak yooyu yëpp mais bi ma fii vraiment am naa satisfaction daal. waaw loolu de la ñaan loolu la ñaan buñ tegoo ci yoon bi rek ñun ñu ngi ñaan xam nga ñoom li ñu bëgg yëpp financement yëpp bu ñëwee xam nga ñu dool si accompagner ñu ba ñu mun a am insertion dans le monde du travail. waaw ak lu ci munti am rek li si li si li ci li ci am solo mooy maanaam li nga fiy jëlee quoi li nga fiy jëlee li nga fiy jàng parce que seen approche bi man mosuma koo gis ñëw. ne lan mooy sa problème yow yaay définir say say say problème définir say solution yombul quoi bu njëkk da ngay gis ONG day ñëw rek ay ca financement ci lii joxe wala ci lii lañu leen di former wala ci loolu mais ñoom dañuy ñëw ne la lan mooy sa problème yow yaa koy utal solution accompagner la ci loolu waaw loolu moom approche bu bu ñuy saluer la quoi. waaw di wax rek ñu bañ a toog jéem a ay formation parce que formation yaa ngi surtout loolu jeunes yi moom xam naa ne ku leen jàppale ci formation éducation dinañ jël trop loolu rek la jeunes yi waaw mais manqué wuñ dara potentiel yaa ngi fi mais duñ def duñ am formation doo am benn kii bu ko defee pour nga insérer bu nga am insertion ci monde travail bi day métti parce que doo am doo am doo formation amoo métier mais bu nekkee dañuy am formation yaakaar naa ne loolu dina doon loo xam ne nii dina dina dina wàññi bu baax chômage bi xam nga ak euh, ñàkk liggéey bi ci dëkk bi quoi. collège waaw di leen jaajëfal di leen jaajëfal affaire yi moom rafet na trop vraiment xam nga euh, deux jours bi mooy troisième jour bi deux jours yi moom xam nga deux jours d'échange et de partage yoo xam ne. c'était vraiment fructueux jur na dara quoi vraiment waaw on